wala mu mel na jaan ngay sentir mu sa yaram bi di dox mu dalay matt matt bu saf yenn saa yi mu itam mu jékki-jékki mu dal. am na ci nga xamante itam nag c'est héréditaire seen ay maam wala seen wayjur bu góor wala seen wayjur bu jigéen da leen koy wàll ndax maladie la bi nga xamante ni c'est trop héréditaire day dugg ci famille bu déggee dugg na ci famille bu mel noonu nga gis ni sa ndey da amoon mu yóbbu ko sa baay amoon ko mu yóbbu ko sa frère am ko mu yóbbu ko kon kon kooku kooku kooku jarul ngay toog ñu naan la ay trois mois ñëwal six mois ñëwal nga yeew benn jour ñu la dugg na cancer dootoo ko mën a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 yan feebar moo ci nekk buñ ko ci gisee nga dem defi traitement suñ ko ci gisul nag laa mën nga vacciner wu contre hépatite B loolu lañ ciy faral di wax kon nag képp ki xamante ni am nga mbokk wala dëkkaale wala nit ki nga xamante ni yaa ngi koy dégg ci lu ni mel nañu contacter incha allahu rabbi ñoo ngi nekk Dakar Géejawaay arrêt du Balès kër Serigne Lamine Bara Fall numéro téléphone bi ngeen ñuy jotee di 77 169 45 45